حمدا لمنزلتنا وداي ومنزل الشفاء والدواء bokk ak sëriñ Abdou Salaam Mbàkke sa xel war nay dal gannaaw boo jëflanteeg moom ba pare waaw ci alxuraan rek lay dox déggoo ma de ñaanam xaas la muslaay gaa ko raw yow mi say mbir dëgër maanaam nga umu bëgg a ubbeeku nag ba loo yóotu jot ci sëriñ Abdou Salaam Mbàkke moo ma ci doy ballak maaram ay saak saajo waajaa ngi nga bëgg liggéey bëgg itam tukki mu tëla ngay lijjanti ay kayit mu dëgër nga jortu ni dañu la liggéey baa xewoo déggoo ma de mooy safoo kenn nga bëgg bayre moo ma ca doy yaay raw bukki bu joox ci pël bu ngeen jëflante nga nekk itam bitim réew ay kayit jafe la lool waaw ba ci yow mi bëgg liggéey mu guuta ana ñi bëgg bayre njaay la mu cay def mucc na ay ngay jigéen bëgg bayre pour ñu sopp la bëgg la ba ci góor itam nga bëgg bayre ah amu ca morom waaye kaaraange gaama ma ca gën a ne xaar la doog la koy jox nga nekk ci entreprise bëgg a yëkkatiku yow mi yor sa entreprise itam bëgg ay muslaay néegi sa yi bari rëng-rëng day sëriñ Abdou Salam Mbàkke moo ma ca doy coow la bu ngeen jëflantee ngay jigéen di say ci kër sa jëkkër dana la gën a nopp waaye say goro ci say njëkkee say mbokki jëkkër dañu lay adoore fu ñu mën di toll waa koñ bi nag ñépp lay sopp ngay say ci kër am jafe ak sa borom kër ba ci yow mi jigéen bëgg jëkkër mu tëla ngay góor itam bëgg soxna mu tëla ah mbir a ngi waay ba ci yow mi faru rab sonal muy ko góor ki mbaa ko jigéen ci ñaari wàll yépp nag boo bëggee dégg-dëgg ba ci ñaan listixaar ba tey ak seet woo ko ci 78 433 78 78 maanaam fajum cosaan ak aada nga néew kartan ci néegu sëy ba tey nga ame ndoxum siti hémorroïde ba ci ballonnement ñu baamtuwaat ko 78 433 78 78 moo ngi nekkee géejawaay marché Sam en fas centre commercial ba tey yéen ñi bëgg ay muslaay ba ci ndomba kaaraange yi fii rek la man di jëmboy normal de yàgg naa di leen wax ki ko mën a ki koy jéem du benn ak sëriñ Abdou Salaam Mbàkke rek njàqare day daal di dañ ba jeex tàkk ci kàttanu yàlla ak mbaaxam aajo yépp faju